auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk julli ñu ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo lislaam di baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw ba ñu sante buur bi sant goo xamante ni am na fu mu tàmbali waaye fu mu yem di julli ci sang-sang yi di sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal di ñaanal ay njabootam di ñaanal ay saxaabam ak képp kuy xeeñ ci sunna di santaat buur bi tabaraka wa moom mu ñu dénkaat kàttan gu ñu teewaatee fii ci mbaaxam ñu ngi ko ci sant bu baax alhamdulillahi rabbil alamin di ñaanal ñi nga xam ni ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yàlla may leen wér ci anamam jug ñu koy doxalee it yàlla may leen wér ñi nga xam ni it ñoo la caabi féete ginnaaw yàlla na yàlla leeral seen ni mbir su ko defee dañuy dellu siwaat ci suñu waxtaanu koor ndax suñu seetloo ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi fukki fan yu njëkk yi fukki fan yooyu raxma la mooy yërmande fukki fanu ñaareel yi mooy fukki fanu jéggale waaye fukki fanu ñetteel gii ñu nekk mooy fukki fan yi nga xam ni buur bi daf lay goreel ca safara ku yàlla yërëm dana la jéggal te ku yàlla jéggal rekk dugal la aljana loolu nag lañ ciy jànge mooy yërmande gi buur gi am ci jaamam gi bëtu mànde gi muy xoolee jaamam moo xam ki ko gëm la moo xam ku ko gëmul la ndax baatu arrahman mbindeef yépp ciy dugg mbindeef yépp ñoo ciy dugg muy baatu arrahman moo xam jullit bi la moo xam nasaraan bi la moo xam yahud bi la moo xam moo xam waaye nag baatu rahim kooku buur bi mu ngi ko jagleel ñi nga xam ni ñoo ko gëm ëllëg yomal xiyaam yàlla fay leen yàlla nañ ci yàlla boole kon jullit ak moroomam war naa fexe ba yërëmante am ci suñu biir yërëmante nag dafay tàmbalee ci fa nga dëkk dafay tàmbalee ca ñu nga dëkkal li wolof di wax ni mbay ci sa weewu tànk kilifa yi nañuy xoolee njaboot gi bëtu yërmande ndax it loolooy taxit mu wàcc ba ci mbett mi loolooy taxit mu dem ba ci pénc mi loolooy taxit mu law ba ci biir réew mi lépp njaboot gi ñu nangoo déggal seen kilifa waaw ndax balaa ngay kaas say droit da def say devoir kon ci baatu raxma googu rekk suñ ko doon waxtaane fii ba suba du jeex waaye kenn ku ci nekk rekk na ngay xoolee sa mbokk bëtu yërmande ci sa am am baasi sa mën-mën moo xam nit ki loo ko war a dimbalee rek nga dimbale ko ngir baatu arrahman boobu soo ñëwee tamit ci baatu njéggal ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk heure boo xëyee danga jëf-jëf joo xamante ni su la ci yàlla toppoon du baax su la ci yàlla toppoon du baax moom mi la bind nag may la kàttan ci lépp te ba mu lay bind daf laa bind ci mbaaxam yow amul lenn loo ci defee sa participation lu dul moom la neex rek mu bind li ci bind nag bu gën a rafet moo tax yàllaa teral banni aadama la xadab ko dam banni aadama waaw moo tax loolu euh, njéggal la googu nag dañ koo war a di defante ci suñu biir laxad karab naa bani aadama googu noonu yàlla wax fonk doomu aadama kon ñun war nañuy mën a di jéggalante ci suñuy bàkkaar yi ndaw ndawaat ak suñuy àq yi sa sawaat ndéem buur bi ñu bind nag ñu ñoo mën di xëy di ko tooñ ci façon bu ne mu ñuy jéggal asamaan nag ñoom ci suñu biir su loolu amee rek bunt aljana daal di ibbeeku su ko defee ne ñu ngi nekk ci fukki fan yi nga xam ni bari na ay ngëneel yi ci ne parce que ci biir fukki fan yi am na ci boroom xam-xam yu bari wax ni guddi laylatul qadri ci la ne ñii wax nañu ci fukki fan yi njëkk yi la ñii ci ne ci topp la ñiy wax ci mujj la waaye nga xam ni wuutewu boroom xam-xam yépp yërmande la waaye nag yow soo bañee mu rëcc la mooy bokkoor ga tàmbalee waxoon nañu ko ci suñu commencement bu waxtaan yow guddi gu ci nekk da ngay jàppee ni guddi gi tey mooy sa guddi bu laylatul qadr kon soo ko defee noonu ba weer bi génn yaakaar naa ni ah yow guddi gi moom du la rëcc te guddi laylatul qadr nekk guddi goo xamante ni loo ci jaamu yàlla yàlla nangu la ko dana mel ni jaamu nga yàlla junniy weer loolu nag yombut nga jaamu yàlla jaamu yàlla junniy weer gu mu la nangul loolu yombut kon nag mag ñi dàq bis boobu wër gañ koy wër moo tax ñii jàpp nañ ko ci guddi ñaar fukk ak juróom-benn jàpp ñaar fukk ak juróom-ñaar ñii jàpp nañ ci yeneen bés li ci mën a am rek mooy yàlla nañu yàlla boole guddi leelatul xadri ba ñu fekke ko waaye guddi googu it bokk na ci ci ay ngëneelam ngay def ay naafi la moo xam ñaari ràq sëlmal ñaari ràq ak ngay def sëlmal loo mën ci saar nga tari loo mën ci aaya nga tari bokk na ci soo mënee di zikar xam naa ni loolu it incha allah di ngeen ko utal buntu spécial muy wàllu zikar ndax dafay am lu muy def ci xol te yenent bi sallallahu alayhi dafa wax ni am na cër boo xamante ni mu ci biir doomu aadama bi si cër boobu baaxee léppam baax waaye si cër boobu yàqoo rek léppam yàqu moom waxee loolu nag saxaaba yi ku nekk am nga loo xalaat waaye mun leen xol la mais xol boobu dafa am dafa am lu koy dundal gis nga ni ngay soxlaa lekk nga xiif lekk mar naan nga sentir ni sa yaram tilim na nga sangu mais xol boobu dafa am lu koy dundal bokk na ci nag lu koy dundal mooy jàng alquran bokk na ci lu koy dundal mooy di zikar ci guddi gi nag loo mën a def ci bismillahi rahmaani rahim baax na loo mën a def ci salaatul fatiha wala salaatul ala nabi baax na loo mën a def ci subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baax na loo ci def rek baax na ndax su la yàlla dimbalee nga fekk ko danga kaa war maanaam da nga cee war a profité ndax yeneen bi dafa waxoon ni ki gën a perte ci dundam mooy ka nga xam dund nag ñaari waay juróom ba ñu jóge fi te làqul seeni ngërëm yàlla nañ ci yàlla musal léegi nag moom wax dëgg yàlla dangay ngay nekk ak sa waajur jàkkaarook télé bi di seetaan mu woolo Aïcha kaay yow automatiquement la nga waroon def mooy nga jug waaye doo ko def yaay maa ngi ñëw yaay maa ngi ñëw lool it dafay dafay dafay dafay indi gàllankooru jullit bi buur bi tabaaraka wa taala dafa wax ne sa waajur di wax ak yow rek nga onk ci nee mënoo tee ba kenn du la xisaab onk waa léegi imagine sa waajur di wax nga ne ko yaay da ngaa bëri wax paa bi dafa bari wax wala mère bi li muy kaas dafa bari gis nga yooyu ku ko ci bàyyiwut di nga yóox a yéex a jot luy yóotu muy di yuuxu say waajur wala di onkok ñoom wala di def ay manières yoo xamante ni doom du nekk noonu ak ay waajuram moo tax yenent bi ne ku gën a perte ci dundam mooy ku nekk ak ay waajuroom ba pare te dabul seen ni bànneex loolu nag sooy nekk ak say kilifa doo ko xam waaye bis bu la wanee ginnaaw ba nga wéet beneen biit mu ni it bokk na ci ki gën a perte mooy ki fekke weeru koor ba mu jeex te amu ci ngërëmal buur bi tabaaraka wa taala maanaam yow sa koor gi lépp danga ci li nga ca jële rek mooy xiif ak mar sa koor gi lépp li nga ca jële mooy xiif ak mar ndax si dee ca carte ba yaa ngi ca si dee ca naar ba yaa ngi ca si dee ca werante ga yaa ngi ca si dee ya nga xam ni lii du la yokk ci lenn ci wàllu sa jaamu yàlla yaa ngi ca loolu jarul woon ngay bàyyi xiif ak naan moo tax yenent bi ne ku gën a perte mooy ku fekke weeru koor ba mu jeex te amoo ca njéggal ak buur bi te si fekkee fukki fan yi njëkk yi dafa taxaw ci yërmande te mu nekk weeru promotion te buur bi suy maanaam moom su lay may moom du la may ca yow na nga toll mais daf lay may ca moom na mu toll bis bu nekk nag da koy ful su fukki fan yi mujj yi nag li mu daan ful ci ñaar fukki fan yi mais fukki fan yi mujj yi buur bi daf koy yokk boobu pour nga am ci tiyaaba lu yomb la na heure dog jot nga yëkkati benn potu ndox jox ko sa mbokk jullit wala nga yëkkati benn daggatu tàndara ma jox ko sa mbokk jullit wala yàlla bindal la ci tiyaaba gu dul xaaju jeex moo tax yeneen bi ne wax dëgg yàlla nag ku fekk weeru koor gi ba weeru gi jeexit te amoo ci lenn ci ay tiyaaba kooku su ko defee nag guddi yi am na ñu ci def ay xiyaamu layli moom it nekk naafila guddi gi di fanaanee naafila baax na même bu dul koor ndax koor it weeru formation la sama mbokk méngeen yeeg sàmbeen yi nga xam ne suñu xëddulee dañuy am problème ñooñu asaatu xeru mi na noomi du leen fekk ci kaw jamono ji kon koor mu ngi lay jàngal ni yow da nga war di teel a jug da nga war di teel a jug waroo nekk koo xamante ne da ngay nelaw ba 10 heures ak 11 heures loolu it su ko defee ñu bàyyi ko xel bokk na ci it jullit bi mu bàyyi ko xelit mu farlu ndax ci njeexantal gi lañ toll yàlla moom suy fay du fay départ mujj ga lay fay gis nga suñu départoon fii nii du rawante duñu xool ku njëkk a daanaka loolu dañ ci wan ni fii ni ñu toll muy ñu bari bari bari bari wari nañ bu yàgg waaw wari nañ bu yàgg ñu ngi commencé teg seen i programme ndax léegi waykat yi sax dañ koy way naan après koor gi dina neexat yu kenn xamut ah, voilà kon daanaka ñoom teg nañ seeni programme léegi yow imaginel nga koor weerum lëmb ci ay naafila ci ay sàbbal ci lu ne ba koor gi jeex na nga dem yàqoo ko ci benn soirée boo xamante ni doo ci am yàlla doo ci am yeneen te soo xoolee nii du yàgg tuuti nga commencé gis ñi publicité ci ay caaxaan ci ay caaxaan li nga war a xalaat mooy am na ka ko fekkee woon daaw fekkee wu ko ren kon yow mi ko fekkee ren na nga fexe ba nga def sa kéem lay kàttan daanaka tendance bi moom di euh, léegi mu tàmbali loolu nag ñu bàyyi ko xel te xam ni jullit su ko yàlla dimbalee mu fekkee weerum koor ba koor gi di bëgg di jeex koor gi daa war a def ci moom njeexital njeexital gi mooy la yàlla wax nag wàcce naa ci seen koor ngir mu yóbbu leen ci ngeen gën a ragal maanaam lépp loo doon def ci jaamu yàlla nga yokk ko su la fekk woon ngay julli nga fexe di julli su la fekk woon nga nga nekk ku gaaw a mer nga bàyyi ko su la fekk woon nga nekk koo xamante ni xuloo guddi xulee bëccëg nga bàyyi ko ndax koor daf lay daf lay daf lay forme ci yooyu weeru koor nag daanaka bariwut bariwut weer la rekk kon ñu fexe ba jaamoo ci yàlla ca anam gu gën a rafet loolu daal lañ woon nañ ko baaxe suñu bopp baaxee ko suñuy mbokku jullit te xam ni koore gi jeex ñu farluwaat bu baax waajaat jëm déwén yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm fi ngay xamee nag ni sa kooru ren nangu nañ ko dañuy natt sa jaamu yàlla diggante ren ak déwén soo ci gisee ni yokku nga waaw kay nga yëg ni yow sa koor gi nga doon koor def na ci yow effet waaye si fekkee ni danga ngaa yëg ni sa jaamu yàlla dafa wàññeeku kon sa koor ba léegi kenn nangagu yàlla nañu yàlla musal ci koor gu ñu nàkk nangu bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba defee du ñu fàttali rek mooy azakay koor tamit buñ ko fàtte xam naa ne loolu boroom xam-xam insha allah ci waxtaan yi di ñëw di ngeen ci dugg su ko defee it ñu ngi baalu xàq ñépp di baal xàq ñépp di ñaan buur bi tabaaraka wa taala mu boole ñu jéggal li ci jub nag ci buur bi la tabaaraka wa taala li ci dëng ci jàmbu doon wax la assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu